الحمد لله حتى يرضى والصلاة والسلام على النبي المرتدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهجة الكون وضيائه وعلى آله وصحابته ومن سلك نهجهم واقتفى آذارهم إلى يوم القيامة ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa الشباب دار عمر بن Omar ما Al-Khattab maa ngi nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak jokkaat ak yenn leçon yi fi nga xam ne foofu la xamoon ci téere bi nga xam ne mooy seyrul qalbi yi ña sarja laanu bind ko di woy soppem bi ak sangam bi te mooy yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ba léegi rek dañu di nekk li nga xam ne mooy xarful baa balaa inna haadihi ardu taaha muhammadu fa zaaka aqiqun zaaka salun wa garqadu bàyyi ña sarja laanu mu ngi doon tudd saxa ah, xulafaawu rachiduun yi nga xam ne ñoo doon ñoo bi fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi ko ñoo yore woon de li nga xam ne mooy jiital lislaam mu tuddoon abu bakar siddiq ne waskur imaamahum abu bakrin waaye tudd si ki nga xam ne mooy umar ibnul xataab mooy almazafaru man xadaa siraajan wa faruqan wa daaka al muayyadu sallallahu alayhi wa kon su tuddee ñaar mu dan des ñaar incha allahu taala boo ma toppee rek dégg nga dañuy dal di continuer ci darsu yi moo tax bàyyi ñi radiyallahu anhu wa osmaanu su nuuray ni kullun qad ictala zural majdi fi daaray wal kullu sindidu mu wa tuddal ba Ousmane Ousmane ibn Affan mi nga xam ne sunnuuray ni mooy borom ñaari leer yi lu tax ñu tuddee Seydina Ousmane borom ñaari leer yi dafa takk ñaari doom yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy Roqiyatu ak Umu Kalsum ñoom ñaar ñëpp génn àdduna ci ay loxoom yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu xamoon keneen dégg nga danañ ko dolli Seydina Ousmane kon ku yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam bëggoon la Seydina Ousmane dafa nekk koo xam ne da daan dundale yi nga xalalam ci yoonu yàlla dégg te la gën a seer la daan jël dégg nga di ko dundal lan tanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuuna loolu alquran wax kon laaya jooju noonu lu Seydina Usmaan dégg nga déggoon la ba sax gazwatu tabu xare la woon boo xam ne bu jafe la yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa digal saxaaba yi ku nekk mu andi xalalam waaye keroog Seydina Usmaan andi na xalal jur xam ne ju takkoo takku la yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne laa yadurru Usmaanu maa faala baadahu Seydina Usmaan daal li mu def nii gannaaw gi dootu ci xam benn benn lor dootu ko dal dégg nga ci kaw suuf moo tax boo demee ci diwaan bàyyi ñu radiyallahu anhu mu ngi koy tagg ne wasallis bi si nuurayni osmaana maadihan faqad anfaqa al amwaala fi llaahi munfidan mu ne na nga ñetteelee sayyidina osmaan mbir moom nga di aji tagg ko osmaan mi nga xam ne da daan dundale xalam waaye ci yoonu yàlla waaye la ci gën a seer la daan jël dégg nga di ko dundale ci yoonu yàlla sallallahu alayhi wa sallam kon bàyyi ñu fi loolu la ñu bëgg na tëli ne wa wa tuddal ba tey osmaanu osmaan ibnu affan mi nga xam ne su nuuray ni mooy borom ñaari leeri kullum ku mu ci ñi ma wax la muy Aboubacar Siddiq Omar ibn al-Khattab Usmaan ibn Affan bàyyi ñees nga xaddeex talaa kawe na mu suural maj njumbaxteenu tedd nga bu fekkee ne tedd nga daal dégg de dafa nekk loo xam ne dafa dem ba ca kaw ñoom daal dem nañ ba ca kaw a kaw yaa ngi dégg sa njumbantal la ca mujjantal ga ñoom sax gën nañee kawe lool sallallahu alayhi wa sallam waaye nag fi daaray ni si ñaari kër yëpp te mu nemm ci àdduna ak xalaaxare ñoom ñi dégg nga de àdduna texe nañ fi waaye àllaaxira tamit texe nañ ci bàyyi na wal kullu ku mu si ñëm tamit ma wax la sin didun ay sang lañ sallallahu alayhi wa sallam bàyyi na wa sayyiduhum laysul ka taa'ibi sinuhu aliyun abu sibtayni sayfil muhannadu wa sa wa tuddal ba tey sayyiduhum seen sang kan la laysul ka taa'ibi ki ne mooy gaynde xare yi sin wuhu kay doomi bàyyi taxam aliyun aliyu abu sibtayni mi nga xam ne mooy bàyyi ñaari sëdi sayfi suma jaazi al muhannadu bare buñ daal kooku mooy Seydina Aliou dafa nekkoon jàmbaar bu mënoon a xeex dégg nga de ci yoon lislaam ku mos a dajeeg rek dégg nga de euh, jël na sa bakkan mooy noon boo xam ne mos naa dajeeg moom la jël na sa bakkan ba bu ñu fàttaliku xalwatu xeebar dafa nekkoon xare boo xam ne bu taroon la ci diggante jullit ñi ak xéeféer ñi mu diire ñetti fan dégg nga de sa ñetteelu fan ba la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn mëntu gañe yonent bi ne bu subaa daal dinaa jox raaya ji koo xam ne bëgg na yàlla yàlla bëgg na ko ba saxiul Buxaari yi mu ngi nettali ne fanaan di ñaan yàlla pour ko noonu doon ku nekk di ñaan yàlla ne yàlla na doon man bi ñu xëyee ñoom ñëpp ñu daal di daje su ko defee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ana ali ibn abi talib ñu ne ko dafa wanent ba mëntu xool mu ne ool leen ma ko mu ñëw mu ñëw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jël ténkam bu tedd ba raay ko ci ay bëtam dégg nga de mu daal de xool mu jox ko drapeau bi mu dem bi mu demee jàmmaarloog noonu yàlla bu mag boobu nga xam ne moom la ñuy nga de daal di ko faray loolu moo tax bàyyi ne laysul ka taaye bi sinuhu waaye kookan la sin wuxu kay doomi bàyyi taxam aliyun aliyu abu sibtayni mi nga xam ne mooy bàyyi ñaari sëdi mooy xasan ak xuseynu say fii suma jaazi almuhandadu ba de buñ hindaal sallallahu alayhi wa sallam bàyyi ne wa xamsatun wal abbaasu adkuru jaafaran wa shaabaha abha nnaasi faxrun musannadu wa tuddal ba tey xamsatu xamsa xamsa bàyyi tax la ci yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moog bàyyi yonent bi ñoo bokk bàyyi te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam danaan wax ne xeyru ixwati ali ibnu abi talib wa xayru amaami xamsatu ki gën ci samay mbokk daal ali ibn abi taalib la waaye ki gën ci samay bàyyi tax tamit xamsatu la moo tax bàyyi ne wa tuddal ba tey xamsatun xamsa wal abbaasu ak abbaas tamit bàyyi tax la ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bàyyi tax boo ko xam mooy ki bokkal sa baay baay wala mu bokkal sa baay ndey ak baay bàyyi ne askuru danaa tudd ba tey jaafaru jaafaran jaafaru saadiq mi nga xam ne mbokk la ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam te xaswatu mu'ta moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxoon ñaari loxom yépp ci xaswa boobu nekkoon xaswa boo xam ne bu taratar la bàyyi na dinaa tudd tamit jaafar jaafar moom noonu wa shaabaha te gën a niroo dégg nga wala wa shaabaha te niru abhan naasi ci gën a taaru ci nit ñi te mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaafar da koo niroowun lool lool moo tax bàyyi la nag niru góor nga xam ne jaafar niru na ko yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu de faxrun pukkare la goo xam ne mu duñ guñ dëgëral la salallahu alayhi wa sallam parce que ku nekk bëgg naa niru yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam باين إليك رسول الله حب وخادم يروم رد الباري وفي القلد يخلد إليك جمنك يو كيب أسلوب القصد التي بلاغ رسول الله يو يننت يالله محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما في نكون dégg nga de munaada mu daaf la ñu xasaf xarfu nidaa bi bàyyi fa rasulullahi ngir wéy wi moo tax mu ne ko ilayka jëm na ci yow képp rasulallahi yow yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam xibbun aji bëgg la wa xaadimun ak aji lëggeel la dégg nga de koom noonu nag yarum dana mu sàkku ridal baari ngër màndeel yàlla mooy yàlla mi nga xam ne moo xett nit ñi waaye tamit way yaxlu bi def na béel tamit fil xuldi ci xajjana sallallahu alayhi wa sallam bàyyi ne ko alayka salaamu wa huwa minni wa innani ala al jawwi fii tay haati haamati unshidu alayka yàlla na nekk ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàmm yàlla wa huwa te moom jàmm jooju maa ngi la koy ñaanal min nii mu ngi tukkee ci man wa inna nii te naka man jamono bi nga xam ne ma ngi lay ñaanal jàmm jooj alal jaww yi maa ngi ci kaw jaww ji maa ngi ci avion fii tey xaa tihaamata ci xàllat tihaamata un ci du maa ngi sadd ay woy dégg maa ngi ci kaw jaww ji nekk ci biir avion nekk ci xàllat tihaamata waaye terul maa ngi sadd ay woy di la woy yéentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu daal boo am ne lu muy tegtale muy mbëggeel sallallahu alayhi wa sallam bàyyi na u jam ji mu fil ajwaayi tawran wa taaratan tujaabul mawaami fatfadun summa fatfadu bàyyi ne ma maa ngi ngurum tulu fil ajwaay si jaww yi tawran léeg-léeg léeg-léeg damay nekk ci avion avion bi daw ci kaw jaww ji may ngurum tulu di la woy yow yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa taaratan beneen yoon tujaabu def na mu dagg almawaami xàll yi fatfadun xàll su ma fatfadu topp xàll léeg-léeg ma nekk ci avion yi di ngurum tulu say woy yow yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam beneen yoon tamit ma dagg xàll yi dugg oto dugg ci biir màndi gi dégg nga de xàll bu ma jeexal taw dem ci beneen xàll waaye di ngurumtu dégg nga de say woy yow yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bàyyi ne ala haykalin yabril bara wa xaniinuhu xaniinu ishaari aw lakkal barqi yaraadu bi ma nga xamee ne maa ngi ngurumtulu say woy ci kaw jaww ji fekk na nag ala haykalin maa ngi ci kaw jëmmu joo xam ne te mu namm ci avion yabri dana mu xett albara xasmaan si xam nga avion buy daw dafay mel ni dégg nga de luy les asamaan mu la bàyyi di sax de laa dil nettali ne alaa haykalin maa ngi ci kaw jëmm joo xam ne yabur yi dana mu xett albara asamaan si te wa xaniinuhu riidam avion ma xaniinu ishaarin kum dégg nga de riida riidam gëlëm aw lakal barqi wala mu mel ni ki mel melax goo xam ne yar adu dana mu dënn sallallahu alayhi wa sallam loolu yëpp li muy tegtale mooy mbëggeel maa ngi ci kaw avion bi mu ngi daw daw yu bu am doole riir riir mu am doole wala rim moo xam ne dafa mel ni gëlëm goo xam ne dafay nàññ wala mu mel ni melax goo xam ne dafa ànd ak dënnu dégg nga waaye terewul rek su ma xel mi nekkul ci lu mooy yow yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ujamtima fil ajwaayi tawran wa taata sallallahu alayhi wa sallam bàyyi ne maratu bi badrin bil xalibi tazakkuran li xaayidina al ala al am wa amjadu maratu romb naa bi badrin ci badar mooy place boobu nga xam ne moom lañu defoon xare xare badar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru koor ci bisu ajuma bàyyi ne romb naa waaye bil xalib bi ci xalib mooy teen boobu nga xam ne moo nekk ci badar waaye romb mu fa noonu rek dem de tadakkuran mbir moom ma di aji fàttaliku li xaaidinaa ñeexal suñu njiit ba te mooy yontu bi sallallahu alayhi wa sallam al ala ka gën a kawe al muqaffa ka dekuñ xëñtu wa am jël te gën a tedd képp kuy tedd yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo la gën a tedd bàyyi ne maa ngi romb badar waaye maa ngi romb tamit xalib ba mooy teen bi nga xam ne moo nekk ci badar waaye romb ma ko noonu rek dem waaye maa ngi fàttaliku suñ njiit ba te mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye nag ba ma koy romb maa ngi wax ne a yasmahu sawaaqi fa admu muaatiban li ahlil xalibil kaafirina unnadido a yasmahu ndax dana ma mën a may comme tey nga duggoon ci oto dem ba xam soxla bëgg wàcc fenn ngay ñaan safar bi pour dana la may moo tax bàyyi na ay yasmahu ndax dana ma mën a may sawaaqi suma safar bi mooy suma pilote bi ki nga xam ne mooy dawal avion bi dégg nga ne fa àdduna ma daal di jege mu aatiban mbir moom ma di aji yedd li ahlil xalib bi ñeexal ñun xalib bi mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci teen ba nga xam ne moo nekk ca badar dégg nga da alkaafirina ñi nga xam ne ñooy way weddi yi mooy xéeféri u naddidu mu daal di leen siiwal yeebaane leen bañ xam ne ñii nii ñoo doon noonoo yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bàyyi na su ko defee tamit wa asaluhum maada laqu hiina hayajul muqaffa bi jayshin darrabuuhu wa jannadu wa asaluhum su ko defee ma laaj leen tamit du ma leen yedde xam dama lay laaj na len ma za laqu ana lan lañ dajeeg in hayyaju ba nga xamé ne jeqi nañ al muqaffa kuñ qintu ga luñ jeqi bi jeyshin ci leleuf xare bo xamné darabuhu dara nañ ko wa jannadu ñu dal di ko formé bam nek ay soldaar déggal su ko défé ma laaj leen lan lañ ci jëlé ba résultat lañ fa jëlé waye deug deug dal résultat la bo xamné ne bi sallallahu alayhi wasallam mo len leen gañe ñom ñoom ñu dal dem mujj torox mo tax mu ne wa qarrajal al manzuru wal jibtu qaashi'un bi ma'tami kufrin fil jazirati yuqadu sallallahu alayhi wa ko defee ñu daal di taxaw foofu beneen yoon allah in uridu illa al islaha ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu